kàddu gi s'il vous plaît. Ah, donc ne saytaan rajim wala xawta illaa billahi alazim maa ngi sant yàlla jul suñu gërëm ñaar waa ji di la ñoo di ziar ñi ma fekk ci live yëpp sama doom Rena ñoom Alaaji Pape grand Ousseynou le grand juriste euh, atam ak ñëpp quoi euh, di nuyu aussi sénégalais yi nga xam ñi ngi suivre di tapoter di wax ni tey vraiment sama xol sedd na parce que li laa doon wax mooy live yi mën nañ ko def ay live quoi euh, di nuyu aussi sénégalais am na ku am na ku siif de waaw di wax ni euh, vraiment live yi mën na nekk ay live instructif comme nii di jàngal doomu aadama yu leeral tey ñu ngi ci benn kaaw infraction tey sa nekk gale bu dégg infraction lu muy laaj mooy lan mooy infraction déjà ñu ne infraction dafa bëri ay façon y a trois façons d'infraction yu ñu xam mooy infraction de contre police de simple police bi nga xam ne ne contravention ngay fay dem am na délit am na crime dans ce cas ban lañ fi actuellement on a un acte criminel deux personnes qui ont été victimes d'homicide ki xamul droit mu ne la mooy homicide parce que kii la nee na homicide homicide ñun la homicide mooy mbirum rey fu mu am faat ñu la yan genre faat moo am y a deux homicides homicide volontaire et involontaire comme par exemple benn chauffeur bu yoroon otom man na mbëkk Aziz ak Waly mais bi mu leen mbëkk si yan circonstance la leen mbëkkee indépendant de sa volonté ñu ne ah boobu infraction ba la boo xam ne parce que tayu ko. loolu loi prévoir na ko ñu ne dans ce cas de figure bu ñoom amee bi xew ci ñoom at nii la moo xew ñu ne ah lii de ci biir appartement la xewee muy un lieu fermé ñen ñoo ko def benn individu wala groupe la ñu ne ah association de malfaiteurs mooy comme li xew nii ñu ne x yi bokk na ak Y ak Z ah ki xamul droit ne waaw loolu ma nekkee noonu ñu ne effectivement. il y avait des complices loolu complicité bi ngeen dégg ñu naan y a des éléments de complicité ku mel ni du ma tudd nag man sama métier moo tax mais man ne bu dee man mbëri maay wax mën naa wax tur ñu ne amoon ay complices parce que peut-être que am na lu tax ñu rey ko parce que moo tax parce que dañuy dellu rek juste si diine ak jamono parce que yàgg na ci àdduna parce que am na ku ma dégg sànq muy intervenir naan ak président non non lii du affaire président du am dara gis nga buñ delloo ci diine ak jamono affaire crime mi ngi njëkk a commencé ci Abil a Xaabil mooy doomu maam Adama yooyu yu doon nekkoon ay seex nekkoon couple ñu waroon def croisé dèjà ñaari seex yi kii seexam rafet rafet kii seexam ñaaw ñu war a croisé kii ne man lan moo tax may nangu ñu jël sama seex di ko jokkale kon affaire crime bi doomu Adama sàkkoo rek le crime njëkk am ke bi mu rayee seex ba leen ndeysaan pour wax na ni crime par musul parfait mu jaaxle xamul nu mu koy suulee ñu jàngal français bu ñu duggoon dañ ma wax li may wax nii. kële ne la baaxooñ moo wàcc wan ko ni ñuy suulee donc affaire u crime yàgg na ci àdduna moo ñu jiitu ñun ñëpp bi maam aadama nekkee si jamono rek la crime am donc crime dafa ànd doomu aadama kon te crime la boobu jigéen la woon kon foo gis si àdduna conflit boo gis ba am rey rek mooy am na benn intérêt bu nekk au départ donc dans ce groupe aussi on voit que ñi ngi wax waxu xaalis kon fii mobile du crime bi moo day ñëw foofu li naan mobile du crime parce que boo gisee benn acte bu am rek dañ la moo ko waral ak la moo tax ñoom ñu doon xëcc wala xeex kon mobile bi lan la woon affaire xaalis am na ci ñi ne affaire am na ci yàlla moo xam ñoom ñoo fekk ñun xamuñ donc dañuy jël ay information par rapport ak ñuy am de gauche à droite donc léegi qu'est-ce qui s'est passé am na benn doomu aadama bu ñuy cité ñu ne moom de moo avisé waa kër gaa ji mais yow mi benn question laay posé te Sénégalais yëpp moom la ñuy posé mooy maak Zeyna Bamba Ndiaye mi ñooy ànd guddeeg bëccëg may dem kër muy dem sama kër ma yor caabi Zeyna Bamba Ndiaye comme niñ koy waxee mu nekk sama xarit sama ma jàpp ndaw feebar ma ko

ki rey est ce que moom déjà moo rey parce que mën na avouer pour deux jours soit dañ ko influencer wala ñu menacer ko parce que en bu dee ay genre gang yi am nii comme li am nii ay groupe la peut-être que chef de gang bi mën na nekk ko xam ne da lay menacer ne la hey boo engagé wul yow yaa sa waa kër kër yëpp du ngeen ko fekk déjà kon yaa nga problème donc le gars il peut accepter de se livrer pour protéger boppam protéger famille du affaire xaalis kese ni moo rey même bu dee ay milliards déedéet du milliard kese moo rey kese de tey un chef de gang mën na la maîtriser ne la hey yow mii boo assumé wul yow yaa dem nga xam waa ji xam ay menaces am fu mu toll xam dooleem fu mu toll parfois tu es obligé nga assumer xam ne yow defoo ko day am. parce que beneen affaire am na retour des parquets bi aussi gis naa ne jaaxal na gars Sénégal yu bëri dañuy dégg retour des parquets parce que boo demee juridiquement mën nga def sa PV yow commissaire bi ba war a yóbbu éléments yi en cours de route par exemple comme genre cas mel nii ñu am yeneen yu nouveau yo information yoo jot par exemple imagine yow nga def enquête ba boucler ba war a présenter procureur parce que procureur mooy mettre des poursuites mais dafa am benn buy xaar buy juge d'instruction bi nga moo war a jël décision pour xool ñi centre criminel la wala ñuy door mandat parce que bi mu déglu leen xool ndax li police wax ak yéen li ngeen waxaat est-ce que ànd na tax nañ leen dañ leen yóbbu affaire crime lañ leen doye wala délit la ñu qualifié waat infraction boobu soit dañ koy confirmer pour dóor leen mandat de dépôt wala yóbbu leen instruction parce que bu dee rey moom ñëpp xam nañ chambre criminelle lañ jëm parce que droit moom même sénégalais yi ko xamul sax léegi ñu ngi ciy jéem a góorgóorlu par exemple bu dee cas bu mel ni police mën na def enquête 48 heures mais infraction yi leeragul enquête bi éléments yi ñu soxla de preuve yëpp tas leeragul ñu ne ah mais monsieur le procureur boobaa commissaire Adrame Sarr mi jiite di par exemple nekk officier de police judiciaire bi day obligé jël ko ne ko procureur ah, liggéey bi ma jox de mënu ma la livrer éléments yi. de la garde à ah dañuy jël loolu ñu jël ko en compte yokk 48 heures pour mën a continuer enquête yi au niveau de la police mooy enquête plénière boobu ñu war a boucler pour def un PV rendre compte procureur man ko livrer les suspects. parce que ñi ñu jàpp ba léegi on peut pas dire que ce sont des coupables on peut pas dire parce que mën nga jàpp sax ay suspects dix suspects par exemple nga boucler sa enquête ba yóbbu leen présenter leen deux ans trois ans après un autre personne wala un autre individu feeñ ndekete kooku c'était le vrai tueur gis nañ ko ci ay film gis nañ ko fay dëgg parce que bu ñu jëlee par exemple ah, kaawu meurtre yàgg na fi gis nañ fi kaawu met Babacar Seye ba léegi kenn xamul kan gis nañ fi Demba Diop yéen a histoire Demba Diop bi ñu tuddee Demba Diop affaire meurtre ak assassinat yàgg na ci tey Blaise Compaoré Sankara ñëpp xam nañ ay xarit la ñu woon bi ñuy ànd ku leen ne woon kenn ki mooy rey keneen ki kenn du ko gëm nañu wax ni kon affaire crime ak affaire rey yàgg na ci àdduna mais chaque jour intérêt la soit day nekk affaire xaalis wala affaire pouvoir wala affaire jigéen wala drogue comme par exemple jaay ko drogue yi ak bandi yi seen àndandoo c'est très difficile pour ñu dem la comme dama leen jox exemple gën a garaaw station yi malfaiteur pour gars yi comprendre on est neuf dans live muy man Zeynaal am ay am na ay jigéen tey jii nii mën nañ ciblé ku mel ni par exemple Bougane Gueye daani ñu ne waaw Bougane Gueye c'est un riche milliardaire la ñu ne tey Bougane pour ñu am si moom dara bëgg na jigéen par exemple moom tubéy ji dafa oyof par exemple ñu ne Bougane bëgg na jigéen mais pour ñu am dara si Bougane nañ ko jaay Bamba quoi nañ ko présenté Zeyna Bamba mu doxaan ko bu ko doxaanee peut-être ñun dañu accès moom Lirou Bamba boobu mën naa nekk suñ pion amason bi moom la ñuy présenté Bougane Bougane gis ko booy bi yaakaar da koo nopp Bougane ñëw wan ko montre bu mën a garanti kër par exemple ne ko sama montre bii ma takk wan ko ay oto ay affaire wan ko affaire buloo maan affaire yu jaay taar boobaa Bougane day jàpp ni gel bi da koo nopp te gel association la bu ñun ñu ngi ci ginnaaw nag mais Zeyna mooy nekk suñu élément bi nga xam ne ñun ñoo mën a bugaan parce que bu Zeyna doxaanul bugaan ba bugaan cëpp yaakaar ne jour nàmp la day nàmp ngeen baal ma ci wax ji que dañuy expliquer pour ne am na reetaan am na kaf mais dañu loolu tey jour boobu mooy tax bugaan mën a am ouverture am confiance ni tey dal naa ci booy bi de yàgg bëgg ki moom occasion tey mu invité ko en même temps proposer ko contrat pour sama moom au départ bugaan il est innocent parce que dafa yaakaar ne bugaan da ko ko parce départ bi mën nañ waxtaan di capter mais bi jour bi nga xam ne crime bi ci la war mais boobu ñun dañuy planifier loolu may waral ñu naan complicité ak association parce que ñun planifier nañ ba jox ko gel bi ba mu commencé wax gel bi am confiance dañ ko jox rendez-vous bi nga xam ne nag moom buy ñëw foofu ci bugaan ñun dañuy préparer wu en général que gel bi ñëw na ñu nekk si ginnaawam ñoom placé nañ seen pion même bu dee da ngay jox restaurant wala hôtel ñoom chaque jour dañ fay placé wu parfois sax réceptionniste bi mën na bokk ci deal bi parfois bi yaa y a beaucoup de d'éléments qui peuvent participer ci association de malfaiteurs ki lay jox arme bi kan moo la jox oto kan moo la jox bu ngeen gisee parfois infraction bu amee ñuy jàpp borom oto yi loolu la bu jàpp oto yi oto bi parce que yow boo amul oto mënoo sàcc ay xar par exemple da ngay gis ay euh, parfois ñuy jàpp ay ja mais borom oto bi day doon complice en général mais bu ñu leen jàppee la plupart da ngay dégg ñu ne non waaye daf maa loué woon fekk musu koo c'est des anciens dañuy ànd argent di def ay mal euh, affaire yooyu agression yëpp parce que association boo ko amul mënoo def yenn yow kali yow kese kese maag yow ci mbedd mënoo maa def dara mais tey pour nga sàkkal ma pexe tu es nga uti doole wala ut wala ku la utal dawal donc tey il faut que sénégalais yi comprendre infraction bi association de malfaiteurs la am na benn waaye bu ci dee ku ñuy wax Aziz ak kii Aziz par exemple moo nekkoon cible bi Wally nekkoon l'élément qui est venu au mauvais moment. mauvais endroit mu ñëw fa deewaale ci léegi tey jii nii beneen affaire moo ci am mooy que ni yóbbu na leen di procureur ñu ne ah retour des parquets la moo waral retour des parquets bi donc y a des compléments d'enquête yoo xam ne soxla nañ ko peut wala juge bi peut-être bi disponible wala juge bi nga xam ne moo waroon déglu disponible donc c'est des choses mooy waral retour des parquets retour des parquets en général sax amee boo xoolee éléments yi dañ leen di donc tey jii nii li ñuy ñaan yàlla mooy dossier bi fi mu toll nii comme que policiers yi ñu ngi ciy def ay liggéey bam solo di féliciter suñu gars yooyu mooy commissaire Adramé Sarr ak tous les éléments de la police ak tous les sénégalais yi ci participer mais li ci gën solo mooy na sénégalais rëdd que ni tey crime bi nii mënul am fekk amul ku livrer Aziz fekk amul ku joxe heure bi Aziz nekk këram fekk amul ku xulook Aziz wala amul ku am intérêt xaas ci Aziz wax ni dëgg te drogue bi gars yi wax naan am na fa ak amu qu'on se la vérité un di conscient lucide nit bu lucide nii mënul xool moroomu nitam di ko rey ci jàmm pour nga rey nit foog nga nekk ku nerveux foog nga nekk utis di ba tàggal ak sa sago parce que doomu aadama foor na foor boo xam ne ni te nit amul fitu jàkkaarloog doomu aadama ci conscience tranquille di ko rey te beneen affaire am na yuuxu bi ñuy wax noonu il faut gars ko parce que qu'on nit lu mu yembar yembar yembar yembar yembar boo ko nee dabas paaka dina réagir dina yuuxu. parce que dee kenn bëggu ko ginaar boo koy rey day faqatu ko tabaski bu ngeen gisee xar xar boo ko tëralee pour ñu rey ko c'est tout un problème donc rey kenn nangu ko te yombul kon tey nañ góorgóorlu te gën a prudent beneen conseil laa jox sénégalais mooy sécurité privée bi na ci gars yi gën a góorgóorlu dañu yaakaar ne sécurité publique rek moo am kali yàgg naa sensibiliser man en tant que policier joué naa benn film man ci bu xaar chaque jour bu ñu xaar gendarmerie ak police nañ di dénoncer ku romb benn affaire boo xam ne lii dalul sa xel loolu moo waral sax loo prévoir li naan non assistance à une personne en danger te yow su ma la rombee ATM mi colonel di ko jaay doole ma xam ne colonel mopp doole ATM man war naa mën a taxaw dimbali ko wala ma woo police wala gendarmerie ñu sauver une vie moo gën may jël sama téléphone di filmer beneen affaire bu gars yi war a comprendre mooy que ne tey sécurité boo tabaxee sa kër am nga droit nga jënd caméra monte fa caméra de surveillance par force ku dugg nañ gis ku génn nañ gis loolu Sénégal yëpp ko soxla muy suñ boutique yi suñ kër yi dañ koo soxla ci mbedd yi donte ni Sénégal depuis des années mbedd yu bëri am na ay caméra ñu bëri xamuñ ko mais Sénégal les rues sont de caméra donc tey li ñu ñaan yàlla mooy enquête bi gars yi buukule ko te ñaan yàlla aussi ñu trouver les vrais ñu xam les vrais meurtriers ñu ci bokk ku nekk sa rôle li ñu bëgg daal mooy Sénégal nekk Sénégal boo xam day tranquille parce que du ma la ko nii am na solo nag seen xel duñ dal mais yal nañu yàlla yokk sutura yokk xéewal ba Sénégal nekk Sénégal dëkk bu stable daal maa ngi jégalu ci kàddu yi baal ñëpp macha allah saa yu waxee rek ñu xam ne ku am kàddu wax na ah, mooy suñu frère bi Pato ñëpp xam ko alkaati la ah, muy nit koo xamante ni ku baax la bu ko neexoon ni mu ne moom homme de tenue la du dugg si ay live TikTok mais si askan wi la bokk te tamit muy sensibiliser loolu lañ ko xamee di proche askanam ñu xam ne ñu ne police tamit amul benn euh, xaar ma yàlla ay jàmm la nu sekk salaam la nu cas yu mel ni dafa baax suñu mbokk policier ak suñu grand frère yeeg yëpp dugg leeral nan la ñu war a def bu ñu gisee nit ku ñu agressé wala nit ku rey ah, war ngeen yuuxu war ngeen woo police wala gendarmerie parce que boo wootewul rek souvent mën nañ la jàppee complice wala non assistance à une personne en danger donc bàyyi leen si xel fu ngeen gisee ñuy agressé nit bu ngeen mën ta euh, dem jàppale kooku woo leen police alo ñu ngi agressé fii diw de loolu day am solo